terne muy def un appel li muy wax moom appel à la résistance di woote ay ay ñoñom xale ak mag bés boobu bëgg naa ñëpp ñëw fekk si ma ca ca tribunal mm-hmm. ba pare jóg ne man fu mu neex lay jaar amul kenn ku may mën a teg ci yoon boo xam ne su su mu fa bëggul jaar dama fa jaar maanaam daal dugg ci loolu ñuy wax défier l'autorité mhm. en général loolu nag moo indi malheureusement xët-xët yi toj yi yàq yi ak faatu yi te may commencer sax di gën a mettitlu faat bakkan yi nga xam ne dañoo rot ci bés boobu di ci jaale njaboot yi nga xam ne ñoo si ñàkk seen doom ak côté nag bu ñu munti bokk parce ñëpp ay sénégalais lañ te wax fa dëgg yàlla politique yàgg na fi tar. mais homme politique yàgg na am problème sax ci tribunal mais bañ ko considérer comme c'est un problème politique tey li nga xam ne moo fi xew ci wàllu toj ci wàllu gaañ ci wàllu rey ci wàllu défier doon na loo xam ne mandarga bu rafetul la ci visage u Sénégal rawatina mu jógee ci nit woo xam ne am na sañ-sañ na man damay yóotu. d'accord pour ëllëg moo war a mun a. toog jiite Sénégal am na ci am na droit. mais su fekkee ci yóotu boobu façon bi nga bëgg a jotee ci réew mi. tas réew mi tar mi daf ko dóom ba pare bu ëllëg sax su yàlla defal nga toog doo fekk dara. te réew mi dafa doon réew woo xam ne réewu jàmm la dafa doon réew woo xam ne réewu dal la doon aussi réew woo xam ne aussi. dañoo war a respecter kilifa yi mhm. que ça soit kilifa aada yi kilifa diine yi kilifa ñi nga xam ne tey ñoo yore état bi mhm. loolu yëpp dafa doon loo xam ne dafa war a nekk suñuy mandarga mhm. te loolu la ñu nawee Sénégal en tant que démocratie exemplaire li ñu wax dans le cadre de la sous-région d'accord merci beaucoup ba tax na daal vraiment loolu laa amoon lu may introduire merci beaucoup alors madame le ministre